fan nga ko teg. jëng jigéen joomaa maa ngi la ciy bu baax a baax a baax waaye nag sama noir bi nag tey dama ciy jàllal sama rakk ji borom France muy mami nag te mayu ma ensemble boo xam ne nag karkaala dama koy sol du ruus nag mm-hmm. la ma jox sama rakk ji. Ah, ku ne xam ne prix bi ma solo du ensemble bu yomb muy mami borom France borom cheveux naturels yi baax yi nag borom raw xeer yi. Mm-hmm. loolu rek lay liggéey macha allah ma nga ca France di faatu faatu ba am jom. macha allah karkaala te yamut te yamut fii nag. tegoon na ci jesneer boo xam moom laa tabaski boobu dina ñëw mu di ma teral yàlla na sa jàmm yàgg mami di nuyu nag euh, di nuyu tamit mamaa jaata sama doomu nday moom sama xarit sama mag mooy borom France kon tey émission bi waa bitim réew laa ko may faatu faatu yi mm. dañoo am jom dañoo riis dañoo gëm seen bopp rawatina Sanel ak tamit tarkalla ñoom ñëpp rek siyaar naa leen bu baax a baax ak mareem mm-hmm. borom France jàmbaari fàkk tëdd jooju tey damay ñëw nag ni la sëy dafa yaatu joma mm-hmm. jonge li mu ëmb dafa bari waaye lépp dafa jëm ci nangu. nangu nangu. nangu jël na cëru bañ. dafa jëm ci set dëgg la dafa jëm ci muus. Mhm. mën a togg mën a fóot mën a bale mën a raxas bañ a tayal te bëgg lu baax. ak set boobu nga wax na ci soxol yaatu nga mën uuf ñëpp. ndax boo joŋee te bëggoo sa mbokki jëkkër des na soo joŋee te faalewoo sa jëkkër des na soo joŋee te setoo des na soo jongee te ñàkk sa des na soo joŋee te mënoo togg des na soo joŋee te mënoo fóot des na soo amul jàmm jonge woo ndax góor jàmm moo koy téye mhm. loolu am na solo sa jamaa boo tollee ci réew mi mhm. dem ba yàlla dogal nga takk ripp ci li ngay def gis nga sàcc sax boo koy def da nga sàcc lu am maanaa loo xam ni boo ca jógee tekki. Mm-hmm. boo dee takk rëpp ci métier ñépp xam la ca muy sa bëgg-bëgg soo ca amee dara téel. Mm-hmm. soo ca amul dara téel. Mm-hmm. virus la bu dugg sama xol. maa xamoon waxtaanu góor ak jigéen daf may dundal. ah. boo cagawul doo ma neex. boo ci yaa wax lii. man jeeg boo cagawul bëgguma la soo amul caay-caay nii di vivre nii di waxtaan di ñambax-ñambax ah. doo ma neex yow daal bu dara di sedd na lépp di yëngu man bëgguma kuy melex-melex yi booy wax di leeb-leebal ku la dékkut noppam du xam li ngay wax bëgguma kuy këndëng-këndëng yi ni yàgg màndi ni yàgg a màndi ñooñu màndi ba laxal ba nga xam ni bu nu naanee danuy màndi bu nu naanul la màndi jéeg da am feeling saf jigéen. Mm-hmm. soo amee feeling saf jigéen da xam li nga bëgg te sëy du lu ñuy xëy rek def da nga koy jàng ndax du mokk mook togg dëgg la dëgg naa dëgg. parti boo ci tijji gis lu bees loo war a jàng. Mm-hmm. waaye fexeel ba trouver yi daan jàngal doom yi toog ci kër yi nag ñoo fi nekkatul. Mm-hmm. amatuñu jot gi. ñu koy jooy bari na. wala am nañ kersa ba mënatuñoo jàngal seeni doom. te doom bu jigéen ak ndeyam amul différence amul si tabu fa nga jaar sa doom fa lay jaar kon bu ko dara ump jigéen da caga jàng néegu sëy nekkul boo amee jëkkër da nga ko war a jàng école bi bu ñu xëyee teg la fi ne la bindee sa tur mënoo koo bind danga fay toog ñu mm-hmm. naan la A F J K M N O P Q T ci loolu ngay taqale moo yooyu ngay taqale di ko taqale ba mën a bind joomaa. lettre alphabet yi c'est sûr. dégg ma yow. maa la ko maa la dégg. <laughs> Eh, wax kenn du ko yërëm. loo jàngul doo ko tànn. doo xëy rek toog ci kaye bii ñu ne la bindal joomaa munu ma ko. déedéet man mi jàngul feeñ na ci man. maa la ko wax ba ma bindalee sama tur de ma ko xamee yàggul. Ah. mais mbirum góor ak jigéen loo ma ci fëggal ma tegal la ko. Ah. moom laa jàng kon man ñëwuma ni jàng maa ngi faj samay soxla. Mm. waaye bala ngay dugg école bay xam la ngay jàng ba cay sori bay am bag ak BFEM danga koy jàng alphabet ba mu yegg mooy sëy. sëy daal dañ koy jàng. teg nàmp ween jur góot cuqutaan macc daqaar. aj tànk dugal bés lépp dañ koy jàng. waaw Mbodja kan moo fi toog naan da jàngal ay aj Mbodja tamit. waaw parce que dañ ni. mbay di boo jëm mbaay demal dañu boo jëm mbaay demal nga toog parce que sëy kenn mënu koo jàngale moog lekk ak naana yam ku juddu mën ko xam nga waxuñu ko jug rek jël du xam nga ñun jàngale ñu jug rek dugal dugal góor bu toogee ba yetam jóg microom nu jot ci kaw bu seenee jigéen ju écarté ay tànkam xam nga xam na ne lii fii la war a dugg maa la ko wax loolu kenn du ko jàngale xam na këram dëkkuwaay voilà xam nga lu ñuy jàngale fa ngay jaar mbooja ba mu yëg mën a ba mu yëg mbooja mi wow ba mënta boppam fan lay jaar ba tooy foo mën a laal mbooja ba mu yëg ko mm-hmm. mbooja nag dafa war a daanu mm-hmm. jeeg bu dem ba xamoo benn ñaar ñetti ñett xamoo góor euh, da ngay am benn wala da ngay am ñaar jeeg bu baree ngi fi li ma lay wax chaque jour lii ma lay wax ñoo ma ko gën a xam te sëy nañ ba ami doom jur kër ba mu fees te xamuñu daanu rocci jam ah. la ñu xam moom lañ juree seen doom yépp soo koy wax sax da nga leen di jaaxal xanaa xamul man jeeg bu bon doo nga may bëgg bañ loolu am na. jéeg bon bu ñemewul dëkk. Mhm. li may wax yépp na ci yow doo ma bëgg. mën ko bëgg lu baax. Mhm. ñime dëgg. bëgg a sa jëkkër. je l'aime. Madou. maa mën maa ëpp doole maa fete xale. li may wax ragaloo ci tuus waaye Mbodj li ngay wax am na solo. koy waxal. borom nee na Mbodj boo noppee fan la réew mi jëm. waaw maa maa noppuut. <laughs> Mbodj nee na kon daal jàpp nga ne lépp ci joxe la. moom la ñu góor. waaw. Mhm. mais li ma lii ma la limal yépp day téye góor. ci jonge waaye kaw lal mooy secret bi gis nga ni nga rey sa bët bu ndaw boobu ngay def si suuf mbooja yàq gis nga ni nga rey sa jooma ma ci de <laughs> gis nga sa bëti ni nga ko toggee nii rey ko di wax ak man di lamsal xool bi may xool joomaa bokkut ak xool bi may xool sama jëkkër dëgg la non Mbodja Mbodja Mbodja s'il te plaît. góor bu la nobee dëgg boo koy fixé muy muy jugal. ci biir bët rek mën nga ci rey sa góor xam ne bët lan lay nobee. ah waaw. Mbodja bët nan lañ ciy nobee loolu mënul ne. am na góor ñoo xam ne ci bët jàkk dan lay nob am góor ñoo xam surtout ñi ngay rosaani jàkkaarlu ñoom képp ko moo leen di rey. waaye ñooñu tamit li leen loo gaaw na de. Mbodja dafa am luñ ciy jàng. <laughs> am góor ñoo xam ne nga takk sa sitee bii sa wéeri tooju ci kaw ñu koy séen mu fees dell sa dënd bi mënuñu ko supporter. rey na leen. waaw. am góor ñoo xam nga wane ginnaaw yor kees bu baax moo leen di daaneel. kees bu normal. waaw. dëgg la. maanaam daal ku nekk li lay daaneel. am góor ñoo xam ne teg nañ loxo ci kanam fataay complet gi mu duuf loolu te nooy. moo leen di yëngal. wax nga dëgg. waaye du xool sa jëkkër di ko xoolin dafa am ci ba sa jëkkër bu la tiimee ci sëy mm-hmm. moo tax taal lamp di baax. di gis lépp lépp di leer. sa jëkkër bu la tiimee ci sëy nga ni ko jàkk nii jommaa. Mm-hmm. sa jëkkër jaaxaan na la li ngeen di sëy mu regarde moi seen bëti tagante. xool foofu amour ci ki nga nopp. Mbodj kii nee na loo xalaat mu ngi koy def ci biir néegu sëyam mais taal lamp daal. jëkkër ji loolu la bëgg te moom moom la mënul supporter. jongewul waaw taal daal du ay yàlla dafa bind guddi bind bëccëg tubaab ñëw andi lumière yàlla jël tubaab def ci xel mi lumière làmp def ko ci seenum xel ñu mën ñoo dimbili ñun. dëgg la mu andi la frigo andi la congélateur andi fi ñu toog mu ngi sedd guju. Mhm. mais bu làmp yi fayoon duñ gis kenn. dëgg la. <laughs> loolu am gis du la gis de. loolu am na. joomaa nga sañse lu jekk toog di ko làmbatu ci lëndëm su ma ko nammee def yàlla naa dee man sama saal de bee ko mën a raxas dama naan dung ah? moo jëg ne nan ngay raxasee sa koy def da ngay futteeku bu ne dung bomb lu set waaw caay-caay ci summeeku pour raxas duus rek maanaam ko jox xam nga sa saal demee yow sama saal demee nga fa dugg sama kër ba ñibbi te ma gis dëgg la maa fay duggal sama jëkkër man raxasaale bee boobu def yaramu neen rek nu dung noonu day fay. ah. <laughs> caay caay nga fa di. yàq lii sa guddi pomb lu garaaw a nga fa. sa jëkkër yàkkam bi ñëw ni falaas romb la am nu mu la fekk mu pose foofu du sàcc. akay sàcc bu am doole. <laughs> boobu raxas du gën a gaaw nga bomb lu set sunu yaram yi ñu jël def ko comme or ci biti. Joma seqoog man dara. man du ma toog ngay summeeku sama kanam. dëgg la waruma waruma gisay tàtti. dëgg la. keneen ku ñu sa jëkkër tey ji bu a sumli koo fii bi. da mhm. nga am gën a bëgg col gu jot man su ma génnee man du sol lu bon. loolu am na. loo ma mën di gis ak loo ma mën di détaillé. lu mhm. ma sol mukk lu may rombee nga may xeeb. déedéet. Mhm. loolu yàlla def na ko ci man mais maa gën a saay saay Ismaïla Yacine ku tëj sa buntu bi am nga ci droit nag. ni ko kare juróom-ñaari ta kare eh, dajjal sa dal. pourquoi pas sa jëkkër nga koy nëbb sa yaram te boo duggee salle d'accouchement ràcc tànku gauche tànku droite. boo hmm. fa yëg benn teeram muy feeñ ak. ku ne di tiim ko doom ji ne ci yow nga ne bu xeet ku la ko génneel nga ne ci jàmm. Hmm. loolu am na ku la fay tiim.